Euh, dal leen ak jàmm mbokki internet yu IYAT TV way leen di abonné saa su nekk rek dañuy daal di dooraat kàddu gi fa seeni ko yëkkati jëmale ko nag ci ki nga xam ne rek moom moo di Pape Alé Niang gannaaw nag ba mu jotee xamale ki nga xam ne moom moo di Cheikh Abdou Mbacké Bara daal di jotee yëkkati ay kàddoom nag ne lu mat ñetti yoon rek maa ngi fii ci biir kaso bi wante kat gis naa kene mosu ko faa daal di fekk pour nag seeti ko gannaaw coow loo xam ne rek jotoon naa jipp di ko xamal ne ko nag këram wala boo ko lii di soxnaam amul lenn xam ne rek ay information yu jóge ci moom la dem ci ki nga xam ne rek moom moo di Pape Alé Niang gannaaw nag ba mu daal day nekk rek foofale ca kaso bu rëbës moom mii di Pape Alé di jot a xam ne nekkat ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di garde yi mën nañoo daal di seede li ni mel nekkat gannaaw ba ñu ma daal di jot a may li nga xam ne rek moom moo di libération sax jot na ma gis kennikat amul benn relation boo xam ne rek dox na seen diggante ñoom yi nag di Pape Alé la mu ko tëjee du lenn lu dul ay waxi neen maanaam maanaam waxi caaxaan di ay fenni neen noonu la ko daal di tëjee moom mi di Pape Alé Niang kat gannaaw bañ ma libéré ba tey diggante wu ñu bët man ak yow di kàddu yi ki nga xam ne rek moom moo di Pape Alé Niang daal di koy teg nag ci ki nga xam ne rek moom mooy Cheikh Abdou Bara gannaaw moom mi di Juan Branco ba mu yëkkatee ay kàddoom rek mën nañ ba tey dañalul di continuer li nga xam ne rek moom mooy objectif am jëmale ko nag ci ni nga xam ne rek moom mooy l'ensemble des prisonniers détenus politiques yi nga xam ne rek daal dinañ leen di jotee libéré nekkat dafa nekk benn opportunité bu nga xam ne rek kii di Ousmane Sonko dina ko may mu daal di mën a rendre réligible lii nga xam ne rek moom moo di opinion internationale gannaaw nag ba mu defee lii di devoir am nekkat dina ko may sax gannaaw gi pour mu mën a nekk nag candidat gannaaw ba mu joxeñee rek ki nga xam ne moom moo di Bassirou Diomaye fay nekkat dina war a daal di mën a nekk candidat ci arrestation yi nga xam ne jotoon naa am bu fekkent ne puusootaa nañ puusoon nañ tuuti rek li nga xam ne moom moo di élection yi nga xam ne waroon naa am fii ci biir réew mi di euh, Sénégal